bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñoo leen di nuyu bu baax te leen ziara ci weeru tedd wu mag wi muy shahru ramadan ci bis bu tedd bi muy yowmal jumaa di ziar ñëpp bàyyiwuñ kenn di ci ziar bi ak nuyoo bi Cheikhul Fadila Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko di siyaare sëriñ Afia Bousso al bi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma ak mboolem kilifa yi nga xam ñoo koy jàppale ci liggéey bi yëpp ci noonu la ñuy siyaare sëriñ Fàllu Mbàkke Cheikh Touba bi nga xam ne mi ngi ni toog jiite commission organisation bu daayira Muxaddamatul Xidma ak itam sëriñ Abdou Xaadir Bousso moom mi ngi nii teew jiite bokk ci ñi jiite commission communication di ziar si Cheikh Naa Mbàkke mi nga xam ne moom it daanaka jur ñu koy tudd xam ngeen ko bu baax moom mi ngi nii teew ci jotaay bi ak sëñ Mbaye Wade bokk ci commune commission organisation bi ak si Cheikh yëpp ci noonu la ñu soxna yi ñu ciy soxna Ami Silla moom mi ngi nii teew ci jotaay bi ak soxna Aji Lamp ak soxna Xadi Gay ak ajaratu soxna Xadi Sidiane ak soxna Khady Niane ak mboolem ñu nekk ci jotaay bi rek ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ci noonu la ñuy ziarewaat waa Firdawsi yëpp bàyyiwuñ kenn njiital soxna May di amaat mbégte bu baax a baax ci jotaay bi nga xam ne seq nañ ko ak yéen te dara waralu ko lu dul liggéey bu sell bu màgg bi nga xam ni moom lañu suñu borom boole di ñaan mu gën a yàgg bu lool te lépp luñ ciy def suñ borom nangu ko te defal ñu ci tawféex te jàpp naa ne am nañ ci tawféex bu baax a baax ndax li ñuy def rek dafa doy sëkk muy ñëw di seetal jumaa ji loolu rek bu ñu ko defoon dafa doy sëkk waaye ñu boole si di njoq seen àddiya di ci boole kon nag jàpp naa ne liggéey bi sëñ bi nangu na ko moo tax ndax benn coono jàpp ngeen ne amu leen ko ci ndax waxtu mu nekk saa su mënoon ngeen ne dañuy liggéey rek doy na seen duñ ci boole waaye saa su ne yéen a ngi dajale seen àddiya ak lu mu mën a toll ngeen di ko ñëw di ko defaat ci biir liggéey bi waaye nag damay wax rek la suñ Saalihu Mbàkke waxoon nee woon moom du li du kuy liggéey kuy liggéey Sëñ Tuubaa ndax nee na paygal xam kon tamit daa mel yeen yéen taxawaay boobu rek ngeen taxaw kon ne ñu sant bu baax xam naa duñ ko guddal ndax ajuma yi mel na dafa xaw a xat moo moo tax kon bu ko defee xam naa dañuy jox soxna Amy Sylla kàddu gi bu paree ñu jox soxna Sëñ Fallu ak Sëñ Seexuna ak mbooleem ku ci war a jël kàddu rek kon ñoo ngi jéggalu bu baax jërë ngeen def mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ah, bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen balu àq bu baax di leen baal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi nag saahidul fadila sunu xalifa général Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool mbàkke bay ko wér noonu la ñuy xalifa Baye Fall it sëñ am di mbondu menn Fall di ko ñaanal suñu borom dëgëral ko te yàggal ko fi ba mu àggal liggéey maam Seera Fall ni mu ko bëggee te lépp nu ànd ko ak moom di nuyu nag képp koo xam rek bokk nga ci njabootu Serigne Touba waaye di jiital nag sëti maam jaara bu sa yi nga xam ne tey lépp soxna si la bu sa baali ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare képp ku sant bu sa rek waaye di desiwaat nag ci mbàkkee di gën a sukk sunu ñaari bëti woom di nuyu sëñ Fallou mii nu janool ak mboolem ko mbokkal liggéey bi di ko sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom guddal seeni fan te wéral seeni yaram sunu xol seet na ci yéen guy sunu xel dal na ci yéen sunu yaakaar rek mu ngi ci yéen ndax liggéey bii kat ngeen boole te sunu borom dimbale nu ban bokk ci man naa sant yàlla bu baax yéen yéen ci boole mënatul leen a fay yaatal ngeen nu ci ubbil ngeen nu ko wan ngeen nu leen ciy jariñoo yàlla nu yàlla may nag nu man cee jariñu te aw yoon wa muy di amob yar waaye di amit teggin amag taalube tey dox ndànk di wax ndànk te bañ a ëppal ndax buñ la mayee lépp it nga jël lépp loolu baaxut te lii nuy def fii sunu borom mën na ko baaxee waaye jomb nanu lool kon nag bu nu yombee nañ ko téye ndax lay jomb nga mooy ñu bari nag ñu ngi romb jumaa ji waaye mosu ñoo nekk ci liggéey bi ba tey am ñu xamul sax ne liggéey bi am na ci dëkk bi te muy liggéey boo xam ne njariñ kese lu àndut ak benn lor la kon nan ko sant yàlla bu baax te gën a góor góorlu di soññe bu baax nu gën a góor góorgóorlu ba toogaay bi nu am ren bu dee ne nan am bu ko dàq gën koo riis gën koo ëpp lépp loo xam ne bi lu baax rek ay toyaaba ak ay ngëneel ki njariñ fii lu fi dem rek noo ko fi war a def ndax noonu sëñ bi noonu moom ki la nag moom moom sa lépp kon bu ko denc kenn denc sa doole bu ko denc sa alal bu leen ko denc seenu ñàq na ne foofu lépp di ko jox suñ ko defee sunu xel dal noo ngi sant ñëpp nag di sant ñi nga xam ne ñooy sëñ Fallou mii moom ànd ak ñoom àndal ci liggéey bu rafet bii ak tawfeex gi ñu yàlla boole ak niñ koy doxale bu leen neexoon du ngeen toog nuy toog da ngeen ne feebar nu ne jigéen ñi buñ noppee ne kenn rek ñëw waaye bëgg baax ak bëgg yaatal ak bëggulu leer moo tax ngeen di nu dajale nun ñëpp ku ne xolam sedd guy wër na yàlla xool boo dem tey dafa sedd ndax jataay bi am ak yéen ndax dafa rëy lool te mënoon a ñàkk am kon war na koo xam te téye ko te lu nu koy may boo léegi ne ca ban amaat yeneen i jataay di nuyu nag soxna làmp mi nga xam ne moom moo nekk ci kanam te yàqu ci dara moom itam jaay di ku baax ku yaatal ku lewet ku neex a àndal waaye nuyu soxna Xadi Géey mi nga xam ne mooy sunu jawriñ moom bu nuy boot moom da naan moonu boot soxna làmp boot ko xam naa nag dana bari bagage moom ndax bàyyi faal yi moom bootu rek la ñuy def te ku ne ñàpp doo doo wàccati kon yàlla la yàlla may ginnaaw gu dëgër rek ak muñ ak xol bu tàlli ak leer dënn bu yaatu ba nga mën a boot njaboot gi ndax njabootu sëriñ Tuubaa la kat te mënuñoo bañ a bootu une fois dañuy dem rek kon yàlla sëñ bi womatal boppam di nuyu soxna Faat Jaxate sama goro di ko ñaanal moom danoo bokk liggéey bi jumaa ji ma noppi mu di ma teral di ci boole ba ci saag bi ma yor rek ñi koy soow ci rafetaay hectare moom ko wutal ak yeneen i bagage yoo xam ne yu murit lay doon kon yow maa ngi lay ñaan bu baax soxna si suñu boroom defal la feex maa ngi nuyu mboolem ñu fi nekk ci turu njabootu Serigne Touba gi rek niñ ma ko joxee rek ndax maguma ci kenn gëruma ci kenn baax nag yàlla mooy def te loolu la dogal kon maa ngi leen di nuyu ci turu njabootu Serigne bépp waaye rawat nag turu njabootu kër Serigne Sohibou di leen wax ne rek ay ca murit ay ca murit rek buñ dellu ginnaaw buñ arrière nan ci nekk rek ndax njëriñu kese rek lu ànd benn lor tey nag jataay bii day jataay la boo xam ne mi ngi mel ne ñu ngi janook sëriñ bi mu janoog noonu ndax li ñuy wax ñu ngi koy dégg li muy li ñuy def mi ngi koy gis te suñuy bëgg-bëgg suñuy itte lépp xam na ko kon nag murit bu ne xam ne ku fi teg tànkam bokk ca liggéey bii say aajo jërutut nga di ko jàmbat sëriñ bi xam na ko ba noppi te na nga ko bëggee noonu la koy fajale kon ay ca murit bu kenn des ginnaaw na ñëpp ñëw te yaatal liggéey bi te di ko soññee ci mbedd yeeg mbooloo meeg koñ yi ak gox-goxaan yi dafa war a bari ba suñu ñëwee alterné bu ne jumaa ji lépp mën a set léegi-léeg nag dañu yërëm dong dina wàcce waaye fekk noppi wunu bu fi dara di desati nañuy ko mbooloo mi buñ bokkee dajee ci jumaa ji mën na nañoo fomp jumaa ji ba fompaale tali bi waaye nag wax dëgg yàlla na nañu gën a góorlu di farlu nit ci ñëw gi yenn saa yi da nga ñëw daanaka sa yaram day daw ndax liggéey bi yaatu na waaye li fi daje ci mbooloo day néew kon nag bu nu wuy si mbooloo mi rek wuy si eh, eh, génération bi nii mbooloo mi bari su ñibbee ca kër ga toog di denc yére yi amul njariñ yére yi moo mënu ko moo mënu suñu jëmm borom ak ko moom mooy ki tëdd fii te lim ci soxla mooy di ko sol di di ko liggéeyal muy faj say kon nun ñëpp nañ maasa ci di góorgóorlu di teew ndax ñàkk a teew gi nag moom léeg-léeg moom day metti lool da daanaka doo gis ay ñaaf ki nit te loolu nag dëgg-dëgg nag du liggéey de du gëm-gëm de du taali bi du ngor kon nan delloo sëñ bi lam nu defal mënuñu koo fay nag waaye kon góor góorgóorlu na nu wuy si di liggéey jataay bii nu bàyyi xel na dana ma sa ñëw te ni mu ñëwee nag noonu la jataay bi yomal xëyam di ñëw suñu digganteeg moom ci kanamam bu karagoo ku fa di fu doon dara doo fa fekk dara kon nañ leen góorgóorlu ci taari bi te góorgóorlu ci liggéey bindu ci daayira bi sol ci yëre yi takk ci bats yomb na waaye liggéey bi moo jafe da ngay ñëw di mbale di fomp ba këf ba daar ji set wicc ba jumaa ji mel ni mara mel ba amee parfum neex indil ba amee curaay indil ba amee addiyee deel indil li ñu sox li soxla woo waaye liggéey bi ñu tegeen muy li nga xam ne moo jëm ci màggal Tuubaa gi ñun ñëpp danoo war a nekk suñuy kër di togg ay ndab di ko indi di wut ay taraga di ko indi di ko jox ndax bis ma moo ko moom moo moonu moom moo moom suñuy alal kon lépp luñ fi def defaluñ ko ko suñu bopp lañ ko defal dañoo delloo na mbaatu la ca ndaa la rek na ñëpp xam loolu bis bi nga xam ne itam mooy korite gii ñu def koor gi ndog yi ñu def ci jumaa ji wëru kenn nun ñu doonga la war te li am tubaakat dëkk yëpp a nga koy roy te ci sëriñ bi lañ ko gisee di ko roy ci moom kon buñ ci des ginnaaw kon nin ñu ko tàmbali ba ñëpp gis ko di ko roy nañ ci nekk sax ci ba am ci ndam lu kenn amut di góorgóorlu teg yi li ñu natt ko si ñëw di ko joxe muy as adiya yomb na te bis bu ne ñu def ko ci aw xew ay ngénte ay ceet ay ñàkk fayda yoo xam ne kenn xamul lu ma doon yooyu day matadil nit rek te di ko tardeel tey nag loo ci am dara loo ci am yàlla doo ci am yonent bi doo ci am sëriñ Tuubaa doo ci am dara te ku deekat sëriñ bi ngay soxla foofa nag ko fa defu dara doo fekk dara jëf doo nga yóbbaale nag mën a tëdd sam xel dal kon nag nan góorgóorlu ci jëf yu rafet ngir bu nu tëddee suñu ndeyjoor suñuy jëf mën noo dimbali mën noo wattu mën noo jàppale mën noo wallu ba sëriñ bi ramu nu ramu nag foor na ku ñu def ku defu dara di su la ramm de ku defu dara kenn du la ramm nan góor góorgóorlu àdduna jeex na ba noppi jeex na ba noppi kon nag nan góorgóorlu te fii ay gone nekkuñu fi ay gone jigéen ñu fi ay mag yi jëmm fi nekk kenn ku ci amut juróom benn fukk am nga juróom ñaar fukk gën jaatul juróom fukk ak nangam kon gone nekkatu fi bu nu ndax suñu bopp lii ñu nuy def loo ci la suñu fay àjjana nekk ak àdduna ci la nu mën a jaglee suñu àdduna yomal xeyaamet buñ faatu ci la nu mën a am may àjjana ndax sëriñ bi kat comme fay sa lépp jag kon nan góorgóorlu sëñ Fall ñu lay sant bu baax mbaaki dinu woo këram dinu teral dinu defal lu ne ngir rek dinu dinu woo ci boppam ak dinu dinu naap ngir dinu wan teraange sëñ Tuubaa ji ni mu toll ak ku ko yor ni ko war a yore loolu sax am njàngal la ci noonu nii mu nuy terale noonu noonu di terale war di ko teralente ci suñu biir ndax murit kat teraanga rek la xam kon nag nanuy teralente ci suñu biir day bàyyente xel di suturaalente di dimbalente nag ci suñu biir di ci boole ndax ñoom ñi ne lii de dimbalante dong la ndax lii ñu leen di jox tey boo ñëwoon tey ngoon ba fekk ñu laal fii lañ fay def lii du ci dara sëfu ko sax xorom kon nag nañ góorgóorlu dafay naar bi xorom si buñ ko mun dafay xorom ci xorom si day sant naar bi te am ngor te bàyyi yenn yi daje bu bari bi bu ëllëgee nga bañ a ñëw amul benn njariñ ay junniy doomu aadama te bu léeg-léeg nga watu doo gis ñaar fukki nit loolu nañ ko bàyyi xel bokku ci ci de maa làmp mi ne fi toog ak soxna Xadi Géey mi ak soxna Fat Jaxate mi yenn saa yi duñ gis kenn fii danaan wéyeg liggéey bi ne fii ñu bale ba fee ñu ne xel ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko jooju wàcce li ngir yërmaande ji ñu leen sax loolu sax dafa war di set wicc lépp mu noppi wala ñu la wàcc lépp noppi kon na ko fi yenn su maa ngi fi finance da koo jar di leen teel a ñëw di teel a liggéey liggéey bi teel a sotti lii kat baax na waaye man liggéey bi ci la de ci la bokk maa ngi jéggalu nag ndax man samay kàddu day xaw a diis waaye maa ngi tuub bu baax te ngeen balu ak ngeen baal ma yéen ñëpp na ngeen ma baal baal naa leen ci xol bu sedd guy di ñaan yàlla defal nu ndimbal jéggal na sunuy bàkkaar sunuy rëcc rëcc te nangu na sunu liggéey te dencal na ko foo xam ne dara ko yàq te yàlla nu yàlla defal mucc gu ànd ak ay xéwal mucc njaboot gi ak ahsanul daarayni xéewal yu mën a liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax kat mbir mi laaj na loxo ci poos mbaa ci poset kon yàlla na ko yàlla defal man man koo jekku bu baax di tuubaat bu baax kàddu gi du yëkkati sax ma di ko dégg noonu koy tuub mbàkke noo ngi tuub bu baax di jéggulu jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ tubaa barkeb sëñ Tuubaa wax ji de xam naa sax damaa mën da ñàkk wax rek waaye soxna si wax na lépp te boo waxee ba pare sax wax dëgg yàlla war ñu jëndee dara ndax wax dëgg yàlla mooy sunu kilifa ndax sëñ Tuubaa moo def loolu waaw kon nag xanaa di sant rek man di sant rek laay def aw ma dara lu ma wax soxna mi si la wax na lépp te xam naa sama jikko su ma bëggee wax li ma bëgg a wax damay mujj sama xol fees wax ji daal di yàqu kon nag naa ko gàttal rek te ngeen xam li sama xol xam ngeen ma bu baax xam naa leen bu baax ndax lu yàgg dëgg la te ni ngi bëgg a yàgg te sañ benn boole kon damay sant rek damay sant rek maa ngi sant bu baax ñi ma yàlla booleel ma fekk leen ci jumaay sëñ Tuubaa ji muy dongo yi toog sunu sëriñ yi ak sunu moromi dongo yi toog nga xam ne dañoo daje jumaay sëñ Bamba ji sëñ boo booyoon nuy liggéey nu duñu jàppale duñu teg ci yoon ban tege ci kaw yoon wi ànd ak ñoom rawatina nag sëñ Fallou Mbacke mi toog ndax man daanaka boo ne sëñ Fallou Mbacke fii ñu toog ah tudd naa ñëpp sëñ Cheikhouna Mbacke mooy sunu jëwriñ te jëwriñ ci dara lu lu sëñ Seexuna Mbàkke ba muy ànd ak ñun xam nañ fañ toll xam nañ fi ñu toll tey xam nañ lan daan def xam na li ñuy def tey kon xam nañ sëñ Seexuna Mbàkke fi mu toll ak ñun ndax mën naa ànd ak jigéen du mer du jànnee du mer du jànnee du dikkale sëñ Seexuna Mbàkke keroog bañ ñu ko wonee ak tey bis ba kanam ga mu ñu wonoon tey la googee rek la yor mooy ba la séenee ree soo waxee mu tontu la boo ko soxlaa mu taxaw wax ak yow kon ñu ngi lay ñaanal nga yàgg suñ kanam barke sëñ Touba sa maam sëñ Fallou nag dama koy bàyyi yàlla yonent bi moom ñëpp xam nañ jikkoom toogaay bi mu toog suñu biir sax daa ñàkk pexe dugg te toog ji nit ñi bëgg a xoolanteeg nit ñi sëgg rek mbàkke baal te lu baax yow ah kenn kenn demul nga des man de lu ma am ci jumaa ji bu yaa cekka ña ngi wéyee dama naan yàlla ak yow bu soxna cekka jàllee rek yow ah waaw mbàkke baal ndax ki lay muñ loo ak a toog loo fa nga toog boo fa amee njariñ war ngaa xam ne moo la ko may waaw te yaa cekkaa ma fi teg moo ma fi saxal moo ma booleeg waaye mbàkke lu ma téye ci jumaa ji ci nga ndax danga maa muñ loo maa toog di ma won yoonu toog rek ak liggéey ak muñ waaye gisuma ci lu njariñ rek mbàkke kon nag yal nan ko bokk barke sëñ Fallou sa maam sant naa mbooloo mi ma àndal nag wert ku sol wert rek sant naa la ka jëkk a bindu ba ka mujj a bindu kuy sol wert rek gërëm naa ko ndax yéen wenn say ngeen def seen bopp am jomm nu liggéey teel a xëy ak guddee wàcc kenn du ne mënuma kenn du ne xawuma kon maa leen di ñaanal bu baax seen wert bii yal na yàgg ak yéen yal ko sol ba àjjana te mu maa ngi leen di sant waaye maa ngi sant soxna mi si mi sunu xarit di sunu jëwriñ di sunu kilifa di ci teg Adja Khady Gueye sama jëwriñ sama borom kër di ci teg Adja Khady Sagnane mi may jàppale ba jàppale fa jàppale jafe fa jàppale neexee waaye di ci teg maam fa jaxade sama secrétaire général soxna Khady ñaan trésorier xaw ma trésorier xam nga damaa dof nag trésorier waaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax ban àndee yàgg na bu may ñëw moom ci jumaay ji liberté bi bari daanaka ànduma ci kenn moom rek la àndaloon tey dafa mbooloo mee bari rek waaye bu ma wéetee xadi ñaan rek laa àndal waaw moom rek laa àndal àndal maa moom ba tay muy ma jàll di ma jox may toog kër sëñ Saliou loolu dama ko fàtte waaye nag jërë ngeen jëf ndax wax soo ko toppee day neex day jàll te heure dafa jot waaye gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp di ñaanal ñëpp yal na ngeen gudd fan te te am kàttan ak xéewal gu man liggéey sëñ Bamba borom jumaay ji barki sëñ Bamba jërë ngeen jëf jërë ngeen buñ la koy defal bu wax ko jotee boo ko xut day mel ne da dof mbaa nga wayadi soxna Xadi Géey mi yàlla danoo booleeg moom waaye mboolem ku ne ci jumaa ji xam nga ne su liggéey jotee bu wàccee fii da ngay ñëw dañu fekk ñu xiif mar waaye faw dañ fekk laa xam yi tegee kafeem yi tegee mburóom yi léppam tegee ñu ngi koy sant bu baax di ko ci gërëm moom itam ndax loolu kat ak yëg la ndimbal la ndax mag mu liggéey ba sonn boo ko joxee lu mos dimbale nga ko kon loolu moom am na ci solo lool santaan nag waa ma di yaa nag ñi ma kuréel gi ma gépp sant naa leen leen jàmbaar ngeen na gën a góor gu doo yokk seenum jàmbaar maa ngi leen di sant leen gërëm jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bisimilahi rahmaani maa ngi lii ñëpp mbooloo mi di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay lottu naa nag ci wax ci seen kanam waaye day lu mënta ñàkk di leen siyaare bu baax ci turu sëriñ Maam Balla Mbàkke moo ndax moo ñu jëlee ca kër ya indi ñu fii kon jot na ma wax ko ci biir mbooloo mi koy sant bu baax di ko gërëm di siyaare suñu sëriñ yu baax yi toog yëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàggal seen taxawaay di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla yàggal ko fi loolu te wéral soxna sant soxna Anis Lamie ak soxna yi toog yëpp soxna xadike yi ñu koy sant bu baax ndax bi ñëwee moom lañ ñu booleel xamuñu fi dara mu jiite nu woon yu noonu ñuy sant bu baax nag di sant soxna yi ci sama ginnaaw yëpp ñëpp de sama ay yaay mu gën a tuuti ci seen biir sant naa leen bu baax gërëm naa leen bu baax damaa mënut a wax nag sant bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi nuyu ñëpp képp teew jotaay bi ak képp ko xam ne am na yéen teew ci teewut di leen siyaare di leen ndokkeel di ñaanal ki nga xam ne moo teew ci laaj si Xaadim Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu bon du la aw fan ak wéram. lépp loo xam ne naan na ko ñu ànd ko ak moom mu doon kenn ci suñu biir tam boole ci ndax lépp loo xam ne daan nañ ko def jëfa moo ci jiitu ba ci kóor gi tax ngeen dajale fi di ko di ko joxe addiyaam moo ci jiitu te mënoon na ne wàcc na ko waaye nag xam ne li liggéey Seexul Xadiim moom li fii yëg ruugaa ngi dox rek ñoom bi nangu mu ku leen benn yoon léegi nuyu ci tur suñu affaire bi su may xam ne moo jiite daayira boo xam dafatul xidma ak mboolem ànd liggéey bi lépp rek xëy na tey Sëriñ Seexuna Mbàkke mi nga xam ne mi ngi suñu wet jataay bi daanaka bu fi teewee ñu ñëpp mën na cee wuutu nu ñu daan wutoo ci taxawaay yi ko jiitu yépp mu doon borom Pastef doon ko jàmbaare doon ko yaru itam nag. waaye loolu la doon ci fu mu nàmpi kon nag dañ ko ñaan suñu borom moom itam dolli ko wér ba lii nga xam ne mi ngi koy taxaw di ci wutu wax waa wax dëgg yëpp rek ànd koo yéen fépp fépp ba ngeen àgg ngeen ci ci bay daje benn gàllankoor ñu teew fi teewaale fi ñëpp kon maxime bi xarit mu baas ñu ko waxee tudd na tudd nañu ànd ñu fi teew léegi ñëpp kon du ko jëlaat. kon nag nuyoo bi yéen soxna yi nga xam ne yéen a sabab jataay bi soxna làmp xay na soxna am si moo fi teew te dafa am ñun murit na suñu baax boo xam ne tam moo nu jëkk ndax duñu gis lenn ni xam ne taq sëñ bi moom di xalaatal leen tudd kenn waaye kon nuyoo bu ko dëkk teg soxna loxo soxna am si la kon suñ ko tegee tamit mel na ni kon ñëpp a ciy jot di leen ziyaara bu baax di am mu rëy mu yaatu xol bu sedd waaye tam ak ñaax goo xam ne ñaaxaan ngeen ñu ko itam ndax xam nañu ne ay mag ngeen doon ay kilifa doon ay waajur waaye loolu lépp ngeen boole ko dafa mel ne dafa mel ne ñun ngeen jàngalaat rek. ni ñu war a liggéey ci waar wi te xam ne doon ndaw yaa war ëpp kàttan yaa war a gën a sawar kon nag ñu ngi jaare foofu di yi ni soñ bi si doon soññee léegi rek ñu xam ne liggéey bii liggéey la waxee mënut ñàkk jumaay Sëriñ Tuubaa ji nag defe naa dara gënt yàlla ñun ñu di ko di ko setal bis bu set bu yàlla dogalee yéen i ngeen ñëw di seetal al aljuma ak altine tey ji mooy soxna yéexa ñuwaan soxna làmp jaañ soxna xadi géy soxna xadi ñaan soxna xadi si ñaan soxna ndey gay soxna màgg ak ñëpp dal ànd ak tam waa firdawsi ak soxna mi mi nga xam ne man waa Madiyaana gépp ak ñi nga xam jóge nañ ci barab yu fàccati ko rek yaakaar naa sona fa jox de mi bind xay na moom ma gën a miin loolu ndax xëy na tur yi moom moo koy tiim di xam gox yi fa ñu jógee kon nag ñi ngi soññ ñëpp daal ñu gën a def yitte ci liggéey bi te xam ne liggéey bi mooy gën a yitteel waa Moukhaddamatoul ndax jumaa yi dafa mënta ñàkk a set ndax fu waxtu waxtu wu ne dañ fiy julli julli juróom ay nitam dañ fi seyaar si nit ñi tam di fi ñëwee nu ne te nit mën na fee ñëw ànd ak pas-pasam ne ji jumaa ji rek yaramam daw wala al dikkal ko fa mu njëkk fa mu njëkk jot fa lay toog ca su boobaa mën na faa fekk ab ab ab tër tër ca su waaye naa yàq yére yi te defe naa kenn wut jigi jumaa ay yére ay yére ay yére tax kenn ñu jumaa yi tam di fi genn ko genn xet goo xam ni dalay eh, indil jafe-jafe waaye itam nag léeg-léeg nit di fi ñëw itam mën naa am xëy na ngaan ngaan dab ko fi mu doon jigéen fekk ba muy ju xëy na waajur ko woon dama naa rotu ci moom nit itam mën naa am gàllankoor yàbbi dara lu mel ne wàccu wala dara wala woo xam ne da woon sax ci mbubb wala ci sax mu romb jàll yooyu yëpp na ñun ñoo mën naa nag gone léeg-léeg itam xëy na dara dara gaar ko itam boobaa itam yooyu yëpp ñoo ko war dindi moo tax fi ne cër gi ma waxtu wu ne def war di am su ñu amoon li gën a sax nag waxtu par waxtu lay doon waaye nag nañ ko yéene ci liy dal ci bàyyi koog Serigne Touba te xam ne bu soobee borom bi dana ko àggale ci ni ma ko bëggee liggéey bi nag moom Serigne Touba moom du mu bëgg ala kulli haal lay am xanaa kay kon ñun dañuy ñaan bokk ci ñi nga xam ne liggéey boobu day amee suñu loxo. ginnaaw yàlla baaxee na bañ bokk ci koy teewee nag kon nag nañu góor góorluwaay rekk nañu góor góorlu te xam ne bis bu dem bu ne du dil si waat ca fa nu jëm di ëllëg bu ñu fa àggee soxla woo lii lool ndax soo xaddim kat moo bind ci téere boppam ñu masaali ko ci naan ne ñu faatu ba nekk ba sax li leen gën a yitteel ci soo leen ko laajoon ci àdduna ci àdduna bàyyi dañ naan ñu dellu fa donte benn caa lañ fi am mën faa jëf-jëf ci yiw kon nag moom daan wax ne bés ñu daal ba tëdd ko tëdd tukki la tukki boobu sore na lool de ci nañ ko bàyyi xel Sëriñ Tuubaa nag doon ko woom itam koo xam ne loo ko defal danga jëriñu tey jëriñu ëllëg kon àdduna ak laaxira moom moom moom li mu wax rek mooy ku bëgg àdduna am na fi ku bëgg àllaaxira mi am na fi ku bëgg ba yàgg bi mi ngi fi kenn rek mooy ki ko jaaxal mooy ki nga xam ne ko yàlla def neexu ko noonu nag alhamdulilah ni ko yàlla def neex na te yaakaar mooy waral lii ci lañ judd sax nag far kon nag nañ gën a góorgóorlu bu baax baax xew yi nag bari na lool waaye tam yooyu yëpp gàllankoor tam bëri ndax nit dana am sax ci yaakaar naa lañ ciy joxe feneen da nekk sa kër waxtu julli jot nga bëgg a julli saytaan di man man ak yow ngir bëgg laa faat la waxtu wi na ma defee sa ci barab bi itam nga bëgg a ñëw mooy la ah yow kat dafa mel ne suba wala te ci ngoon war ngaa gont xewu diwu munoo caa ñàkk dem ndax nga demee ak moom su dee nga ne ah, kon kon damaa ñëw fay naaj bi damay somm yooyu yëpp fexe seetaane la kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax te xam ne lépp loo man di def lii sa njëriñ rek moo tax ko def ca njëriñ li amu ci lu gën a gaaw liggéey suñu Tuubaa rawatina ci jumaam nga xam ne. mboolem xalifa yi fi mas teew Sëñ Tuubaa kenn ku nekk ñoom xam yi tëj ak dayoo bi moo tax ba fi mu ne yéen a ngi yéen a gis tëj tëj bee ngeen seen les chantiers bu ñu nekk ba léegi jamono si ministère ministère ba léegi jumaa ji mosu ci sànc si mun taxaw mi ngi sànc jumaa ji lan rek moo ko waral la ci sëñ sëñ bi digge woon te mooy ko ci ba faaw xanaa ñoom de xanaa feeñ nañ moom ndax ku ne xalifa Sëñ waaye nag hmm, si Moussa de dañ daan jàngal moo tax ñoom eh, xam naa jeexit yooyu moo moo des ñoom ba léegi rek ba waxtoon kenn ku ne ñoom li nga gis mbindum sëñ bi moom si Moussa daan wax li ma li ma sëñ bu wax ma gis ko li ma gisagul laa gën a gëm te ma ngi tam foofu lañ nekkoon mboolem seex si tam foofu lañ nekkoon loolu la waral njàngam sëñ tasaaroo ci ci wàllu gu ndax léeg-léeg nga dégg ñaan waxtu ne jumaa ya ñu ngi def ay ay boobu ba léegi waaw ñooy def ko ci de ndax nag dañoo xam li ci borom digge moo tax ca suñ foolu keroog bi bi nga xam ne suñu sol bi tàmbali bi suñu fallu àggale ko bañ du ko julli la mu wax mooy def jëm barab bee jébbale na ko liggéey baa ngi daane na seen yoo xam ne noonu ba fu mu fu mu nag kenn xamul la yem ndax lan buñ fàttali ko ci mel njàngam sëñ bi sëñ bi moo bind suñu sox ak sëñ Fall moo ne waxoon na leen jumaa yi sabab nangulee malaaka ñu nañ fi ne dañ koo bëgg a tabax dafa la ko woor mu ne fa am ak ngeen bëgg njëriñu ci jinne yi ñu waxaat ko loolu mu ne fa am ci loolu loolu nag kon liggéey boobee kon nag ñoom la doon xaar ba ba ba nekk ñu ñii kon nag bu fa mujj ba léegi ñu ñëw ci biir kon nag nañ bàyyi xel ci ne la ci waroon kenn ku ne fa mu toll ci tolluwaayam def na ko ci ñu tam fii suñu tolluwaay dem nañ ko ci def ci sëñ Tuubaa moo ñaanoon ne dëkkam bii Tuubaa nañ ko defal mel ne Màkka ak Madina ci tey ji yaakaar naa yi dem Màkka ñëpp fi ku leen am ñu xëy na am ñu xëy na ju ci xëy na ci weeru koor waaye bu dul weeru koor tam ko fa dem fekk dem ñu mu ne koori gàtt ga boo seetloo da gis ci xarum ma ci xarum bu fa gis ay nit yor seeni xeewal di ko lal wala boog di ñaan nit ñi ngir ñu jëriñ ci boogi na ci buntu buntu léegi boo dem biirum jàkki Madina yi itam da nga gis tam ci biir jàkk ja ay ruq yu ñu fa lal bëgg di woo nit ñi ngir ñu fa dog ñi nga xam ne dañoo koor kooru coobarewu yooyu yëpp nag nañ ko fay gisee foofee maa nga xam ne nga xam ne lépp lañ ba ku fi dem ku fa dem ku fi dem boo gisee ci àdduna bi la gis nañ ci àdduna bi la télé bi daan na wan lépp tam da ci gis nañu ko lalee ñoom nga xam ne kon foofee na fa mel fii itam noonu rek la war a mel ay nit ñi wala dugg képp ñoo fa yóbbu di yaakaar yor yàlla ñun tam ñu doon teel bi Sëriñ Tuubaa war a liggéey Sëriñ Tuubaa ci loolu. ndax sam si la waxee léegi xëy sa mun ñoo mun ñoo fay naar bi xorom waaye nag kon nag ñu delloo ko njukkal xanaa ginnaaw ak ma woon li doon ak bëggam nag nañ koo defal rek ginnaaw ñun ñoo fi nekk kon nag ñoo ngi sant bu baax di ñaan si fi indi suñu borom nangu leen ko. ca fulal leen ko dafa leen ci lu kawe seen jot ba lépp loo xam ne doo ngeen ko ci yaakaar te fas ko ci suñu moom dafa leen ko ci may leen ay njaboot yu bari ci barkeel doon ay doolu def ci ay secteur yu yu bari tam ci barkeel ay sujur ay silaat ñoo ñëpp doon ay teel Sëriñ kenn bañ a rëcc ci Sëriñ Tuubaa ñëpp jeex ci Sëriñ Tuubaa suñu boon may ak doole ak wér gi doole fan wi ca mos la ci bépp gàllankoor di wax ne kon daal liggéey moom mi ngi nii xale nag fii ñu toog toog fi di wax dafay xaw a jafe ndax ni jotaay bi mel moo tax waaye itam ak barab bi ni mu mel waaye itam yéen ñi nga xam tam yéen a ngànk liggéey bi di ko doxal ci gis yéen ak sellaay gu ma sëkk ndax kon ci gis yéen ma nga yor kurus ma ngi yor ab doolu xasida ma ngi def kur kurus yooyu doolu tam ma ngay tudd ca làmmiñam dara boole kook liggéey bi noonu nag kon ñu ci soññ itam ñi ci des ñëpp rek ñu gën cee lu ci xam ne noonu rek la bu ñu dara jaral nit jumaa ji di wax lu ñu rut nit ñi ngeen ko jàppoo daal noonu rek la ñu ne soññ bu baax a baax ndax bari ma ku fi nekk ku ne war ngaa la neen dut loolu yoon wi nag nii képp la mooy liggéey ak joxe ba noppi tam suñ ko defee bu ne dañ daje a Seex Xaadim ndax suñ tubaab moo ko bindee boppam ci téere bii dafa xol bu kaw nga xam ne wax nañu fa fa tubaab hadi murid saalix lahu moom bi xidmatin aw bi xobbin aw bi hmm? am na bi aw adiyaat kon waaw loolu kon nag noonu yi nga xam ne noonu la ko sëñ bi bindee ci ngeen nekk rek ak bëgg moom moo leen bindee liggéey bi kon yéen a ngi ci addi itam moom mi ngi nii ngeen yor yooyu rek sëñ bindoon kon nag nañ ci yàlla nañ ci yàlla nañ ci yàlla saxal bañu yàgg ci yàgg koo def lool nag ca sëñ Muntaxa mi nga xam ne tam mooy seede liggéey bi kenn koy ne xam na ne at yi yëpp dana tànn benn bis ñëw fi ngir sargal leen loolu nag doon lu a bàyyi xel kon ndax nit bi nekk ba di fa jëf ba ki nekk sëñ Tuubaa ñëw ne liggéey bi day daa ko demee ko si loolu kon nag dañ jaawale gën a góorgóorlu dañ caa dalal suñu xel saa bi ne dañ bëgg dañ ñëpp di ko teewe waaye tam ñi fi waaye tam ñi ko dul yëg nañu xam ne ñi ñi fi teew ñu leen ci wut rek kem yi ñu fi teew ni ngeen wutoo ñi ci des ndax liggéey bi suñ ñëpp maase woon teew mooy li gën suñ ko maasoon bàyyi itam lañ ci am ay daan waaye suñ ñeen teew rek wut na ci ñeen xam naa kon ni ko bokk yi soññee daal ñii ngeen teewee nii ci jébbale bi waxtu daal ñi ngi ñaa ngeen di teew noonu ci liggéey bi ndax liggéey bi dafa dafa bëri te dafa metti te dafa war set nag kon na ñu ngi leen ñaan yéen ñëpp képp kan bind woon nga nga a góorgóorlu la ci teewaay bu baax a boo ñëwee itam nag bu la kenn yéen jigéen ñi kat yéen man kenn mënu leen ci lislaam kenn mënu leen ci kat soxna Jaara Buso doy na sëkk ci doy gis ngeen tam yàlla fayee pas-pas ba amoon nag ku koy am ci yéen boobu dana ko defal lu mu defal soxna Jaara donte moom nag am faat na ndax na ma ko moo ko may ndax yaakaar naa jataay ji fi doon ndaw boo xool daana jege ñeent fukki at ci soxna Jaara dund loolu kon nag loolu lépp nañ ko def ak soññeeku rek boo defee tàggat njaboot gi itam ci wan leen itam liggéey sëñ bi ca ba leen bàyyi ak jamono képp ndax bu ngeen bàyyi ak jamono ko nekk ak jamono ko jamono leen yar ca yaru jamono ko leen kenn musul kon nag xam naa sëñ Cheikh naa kàddu gi moom mën na ko eh, foofu laay taxaw itam di jéegul itam mboolem njuum di loo xam ne wax ko ci biir kàddu gi xëy na amoon nañ yéene waaye itam ni ko waxee woon léegi rek sëñ Cheikh naa day koo xam ne xam naa ko wér ba daanaka wax ji moom du ko jar waaye itam cant gi nga xam ne daal ñi ngi ko def moom moo ko waroon a def itam te doo ci sëkk itam nag ca mate ko it boole ci ndax ab suñ daar la xëy na ñàkk jot lool waaye itam ngeen dimbali ko yéen itam nag yéen jigéen ñi ànd jigéen ñi itam yéen ñi nga xam ne liggéey bi itam bu ne diw ko jiite tekki wut na diw moom mu ñëwul dara a baax da ngeen war doon bisu kenn doon soxna fa soxna lamp jaañ kenn ku ne doon soxna amisi la kenn ku kenn ku ne waaye kenn kuy ne jàpp ne te kat xëy na du ma du ma dem soxna May jënd du ma dem ah du sotti de wala moom léeg-léeg képp lay ñëw ah bàmmeel su bàmmeel la waaw ah, wan na la lu baax lam la wan yow ne ca moom ko la mi ngi mel ne ki togg aw ñoom képp ci kër yéen jigéen ñi ku ñu jox dépense ba dépense togg ba noppi kenn benn jigéen du du du togg. di toog di toog di dànk di di jox mbër mu jigéen mu naan ko sexal ci saaxam yi ak wonal mu jàll déedéet noonu képp lu demee nag te pourtant moo ne toggoo toog ba mu toggee da ko tàkkee pour wala nga ñëw de donte suur na baax na tey da damaa a ki ca waañ ba danga nag xanaa danga am si waañ wala déet daal di ko ne sa nekk nekk ci yow noonu yi nga koy defee tam nag nu nga ko def ci liggéey bi liggéey bi su su ñëw ki la teete ba am na su ñëwut ba mu tax nga ne ah jëw nañ ko ñëwatut waaye saa boo nee lay ñëw déedéet yow ko ci loolu ndax loo waaye def lu ne sa bopp ko defal ki def lu kenn dara loo waaye def lu ne yaa ko jëriñoo te loo waaye def lu ne tam yaa jëriñu yaa sa njaboot kon nag nañ fasaale suñu njaboot yi di ñaanal tam bokk yu baax yi nga xam tam àndoon na ñoom liggéey bi ca jiitu ñaan si ñoom ñëpp jéggal leen tàbbal àjjana kawe day leen gën ma suñu Tuubaa rawat naa ak sama waajur waa baax suna cekka mi nga xam ne mën naa lépp ci jigéen ñi wala lu bëri ci jigéen ñi ay xalaatam ak ci ak yéeneem ñu daan ci waxtaan lu bari bari tam ñu sonn naa waxee léegi ba tax ñu ko ñaa daal suba dolli ko indi ko daal di yërmande ko aji dëgg dëkk ndax rek tam ñi nga xam tam daan ñëw ca eh, am ngànt tële wala ñu am ay gàllankoor am na wala moom ñëpp loolu leen ومنزل الشفاء والدواء